non dama seetaan Barthélemy Diaz sànq seetaan naa ci ay quelques extraits non mais Barthélemy Diaz réew na non Barth ndeysaan ay toj toj rek lay wax ndeysaan mais nag des fois dama koy comprendre mais waa ji xol bi neexul quoi waa ji waa ji xol bi neexul mer na torop je me rappelle vidéo boobu génnoon bi ñu reporté élection yi moom papaam ñuy fecc bëgg ci reporté élection yi ñu reporté vidéo yaa ngi fii Barthélemy Dias ak fi mu jaar ak Ousmane Sonko sénégalais dañuy fàtte mais tey lu ne mu wax ko Ousmane Sonko non yàgg na sax diñ tëjee Ousmane Sonko muy def ay sorties sorties benn bu ci nekk yu incendiaire jëm ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko génn tànd candidat candidat ba gañe loolu mënu ko digérer ba léegi loolu moo ko sonal defe na ni moo ci ne def ay plan yóbbu fii ay ñu yóbbu na fii ay groupe di def ay genre système politique yu yàggee ba léegi affaire bi amul effet. ba léegi affaire yi dara amu ci affaire yi mu def yëpp mu teg coalition bi yaakaar ne yaakaar ne moo ci nekk même xalifa Sall mi mantooram kenn gis ko ci coalition bi ñaar ñi ëpp doole ci coalition bi muy waa PUR ak Déthié Fall da ngeen leen gisati gisatu leen leen xam na ni coalition bi moor nee na moor nee na xam na ni dinañ leen duma duma ñaari député bu ko amee na sant yàlla moom xam na loolu loolu moo ko tàqale ak sagom di provoqué waa Tamba bëgg na ko ko jàpp moom mais kenn du ko jàpp kenn du ko laal waa Tamba man maa waxoon mi ngi man dem maa wax ma ni mi ngi leen di provoquer effectivement dafa provoquer jox provoquer jox leen rendez-vous di wax ay waxam le 30 dem leen doxi seen soxla ma loolu laay ñaan dem leen doxi seen soxla élection yi bu soobee yàlla dinañ am moom dina campagne te Sonko bi dina ko dégg mu koy neex ak mu koy naqari non ñu bëri dañu wax xam est-ce que xam ngeen ni. Barthélémy Dias bu doon Ousmane Sonko maître Moussa Diop tëj na ko ci kaso bi wala yàq na ay dossier bu yàgg parce que daf ko fenaloon sosal ko Ousmane Sonko moo ko gàddu yóbbu ko ci maître Moussa Diop Moussa Diop retiré plainte am Ousmane Sonko fu nekk la jaar moom maître Moussa jóob da doon yàq carrière Barthélémy Dias Bart da ko fenal loo xam teg ko fenn maître Moussa Diop porte ko plainte ñu war a dem maître Moussa Diop xam bu baax ci li mu téye Ousmane Sonko jël Barthélémy Dias dem ak moom ci maître Moussa Diop waxtaan ak moom Moussa Diop rocc lépp bàyyi lépp teg ci suuf Bart nar woon nekk sax tête de liste Khalifa Sall tànn Juan Soham Wardini Ousmane Sonko nii jamais Barthélémy Dias nekk suñu candidat xeex ko dindi ñëw Abass Fall ñëpp ñi nekkoon ay candidat Dakar mu Pastef mu teg leen na Bart la ñu teg Bart maire bu Dakar je me rappelle bien man am na ñoo xamante ni lu ne laa daj. xeex ak ñoom parce que dafa am fu ñu waroon a voté ji man leen dakaar ngeen di voté pour Barthélémy Dias man ñu voté Dakar pour Barthélémy jaas ma yónnee paas ñu dem voté ji ñii Grand Yoff la ñuy voté ñii Derklé man leen dem leen voté ji Dakar mu ngi noonu Bart tey moo taxaw mel ni mais amul solo xol bi dootul neex si fini Ousmane Sonko ñi ko contre bañ ko ñëpp ba seen maanaam ni ko Bara Ndiaye waxee woon dañuy toog di ko fekke kenn du ci dee. di ko gis muy avancer ñoom seen xol yi dagg kenn du ci faatu dañuy toog di ko seetaan te duñ ci mën dara dara duñ ko ci mën da ngay dégg ñu naan Bougane n'est pas n'importe qui dans ce pays mais Bougane est qui Bougane chef d'entreprise la comme keneen keneen Cheikh Ba Khadim Ba bi ñu tëj day moroomu Bougane ci biir réew mii nii ma nga rëbës tëdd keneen ak keneen euh, ki nekkoon meeru ki ki ñu nekkoon DG Lonase ma nga rëbës tëdd ak ñeneen ak ñeneen ña nga rëbës tëdd Bougane mooy kan. Bougane musul dem élection Bougane ëpp ab ab télé la yor ak rajo c'est quoi le problème Bougane mooy kan moom moo defee infraction Tamba yàllaa ko nattu mu defee infraction Tamba ñu jugé ko Tamba tëj ko comme ay moromam ñam fa fekk ay nit lañu li mu doon jaay di gëree gëree di wane na ko wane mi ngi foofu yàlla nag fa yàlla génne kenn yéenool kenn kaso mais gis nga Sénégal dafa war am yoon ñëpp gis nañ li Bougane def. même même moom bi policier bi doon jàkkaarloog moom sax dafa am respect di wax ak moom ak respect bugaan li policier bi wax sax ak li ko bugaan di tontu di yàq waxi policier bi bu ñëwee tribunal nañ teg lépp ñu seetaan ko di yàq waxu policier bi forcé barrage ñu téye ko ñu ni ko président ngi romb day romb dem jëli avion am ñibbi xaar leen ko mu romb nga jàll nga dugg mu lànk bu leen fàtte sénégalais bu leen fàtte sëñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides Macky Sall ñëw na Touba ci jumaa ji dugg ñu tëj jumaa ji sëñ Muntaxa ñëw ñu teel tëjal ko jumaa ji jumaay Touba ji sëñ Muntaxa ndax lan ñu ni mag Sall dugg na ba pare dafa dugg dañoo tëj jumaa ji sëñ Muntaxa duggul loolu yàggul loolu yàggul te pourtant dañ ko nëpp nëppal mu jàll mais loolu Sénégalais yëpp yëg nañ ko yàggul Ousmane Sonko woo na fi bugaan ni ko jógeel foofu Macky Macky mi ngi maatam jógeel foofu noonu demal ndax bañ ñu indi ko ay problème Ousmane Sonko doon na si def Ziguinchor xaw ma ci dëkku ci sud bi Macky Sall nekk fa mu retourné mais Bougane Bougane lan lay jaay mooy kan lan la def ci réew mi ko à yor rajo yor tele Bougane mooy kan rewande gi ñuy jaay ku weddi laaj baa jaxate baa jaxate bañ ko fi tëjee kaso ba léegi da ko déggati ana baa jaxate moo gënoon a xamadi d'accord na ko wax ju ñaaw trois mois la def kaso génn yaru ni cocc bugaan bis bu fa defee un mois le trente ñu renvoyé waat ko jàppaat beneen date renvoyé ko buñ ko jugé ba pare ñu jël ñu programmé maanaam juge bi yàlla bu mu joxe verdict bi ci jour bi na jël verdict bi renvoyé ko sax pendant ni d'ici un mois joxe verdict bi buñ paree ñu acquitté ko fekk def na fa deux mois bu génnee bugaan dina yaru par force. Bart ndeysaan mu saaga ba pare. mu saaga muy jéggulu ci saaga yi saaga Tamba ba pare mu ni mais xam ngeen rek comme gonek Dakar la quoi c'est-à-dire mel ni gonek Dakar day saaga wala dafa vulgaire cest à loolu xewi na loolu c'est révolu loolu jamono yàgg ya la booy Dakar ñu affaire booy Dakar léegi booy Dakar yi leneen nekk seen bopp pare yow da nga nekk booy Dakar yu yàgg ya wax saaga ba pare def li nga def pare naan xam nga rek booy dakaar yow rek yaa mel noonu bu ko bu taafontoo affaire booy Dakar. Dakar ay nit ñu civilisé ay nit ñu correct ay xale yu jàng ñoo fi nekk respecté xam liñ bëgg xam fi ñu jëm sooy reer reewal sa reewu bopp booy saaga saagaal sa saagu bopp te bul taafontoo affaire booy